ginnaaw ak ajandi goo xam ne amaloon nañu ko C3S daal di ci ñenteelu édition wu jongante bi nga xam ni moom lañuy ñuy dippee yaatal mbindum alxuraanul karim jeexinteel gi ñu ngi ko doon amal alxames gi fii ci Touba. tey ñu ngi fii Touba euh, kër Cheikhul Khadim ci Daarul Mannaan euh, di fi amale finaalu concours bi muy njeexteel bi euh, njeextalu concours alxuraanul karim ci wàllu mbind. ñu baree bari jóge ci gox yu bari ñëw doon bind si ngir jël seen wàll ci lan mooy seen sens euh, biñ tàmbalee ba léegi nag waxoon nañ leen ne ñi ngi amoon cinq cent soixante-quatorze personnes juróom juróomi téeméeri euh, candidat ak juróom ñaar fukk ak ñeent ci bu njëkk ba biñ noppee nag ñu tànnoon ci euh, ñeent fukk ñeent fukk yooyu ñu ci tànnoon nag nga xam ne ñoo jiitu dem demi final bi ñu demee demi final tam ñu jël ci ñaar fukk ñoo ci jàlloon euh, ñaar fukk yooyu nag ñoo ñëw final tey. bu nu sukkandikoo ci imaam Xaadim Njaay tànn gi nu tànn tuuba ngir amal fi jeexintal gi dafay lu ama am solo. Euh, boo gisee tey ñu ñëw fii tuuba defe ko fi euh, yu baree bari waral na ko waaye bi ci jiitu mooy doon gum doon digg réew mi ñu baree bari itam gox yi ñuy jóge Euh, mën a jàppandi ci ñoom ñu gaaw a egsi fii bi ci des tam mooy euh, xam nga ne région Diourbel rawatina Touba euh, fonk mbind gi ak mën a bind gi fi nekk ak yooyu yëpp waral na ñu ñëw fii tey di fi amale concours bi. li ginnaaw jeexintal bi di ay mbir yu bari lool te am solo loolee bu nu sukkandikoo ci imaam Xaadim Ndiaye. mi ngi waajal ci bindkat yi nu ñuy def ba am kaamil boo xam ne kaamilu Sénégal la. nga xam ne ni ñu amee kaamilu Madina ni ñu ko amee Algérie ni ñu ko amee Tunis ñu am kaamil boo xam ne dana wuuteek yi kaamil yi doon génn waaye ci geneen anam goo xam ne bu génnee ci àddina bépp fu mu dem danañ xam ne bii mooy bu Sénégal loolu ñu ngi ci ay ay waajtaayam ak ay taxawaay yoo xam ne xam naa buñ ci gënee sori danañ ci jox ay leeral beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne ñooy lauréat yi ñett ñi nga xam ne ñoo ñooy jiitu ku njëkk ki dana am juróom benn million eh, ki ci topp dana am juróom million ak genn wàll keneen ki ci topp moom itam dana am juróomi dana am euh, ñeenti mili euh, million dana am juróom million amal gi ñuy amal mbindum alxuraanu karim gi di bokk ci tàggataat ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi waaye tamit euh, gën a yokk seenu ko cofeel ci alxuraanu karim ak i tamit tàggat goo xam ne des leen cey tàggat ba nu mën a tegu ci yoon bu baax